dikkati na tëggum semmeñ neex benn naqari fukk daanaka lii la maître Moussa Diop di dund ak jamaay ci réewum Sénégal turbine yéen a kaay naan kon gannaaw ba mu xam lee ni am na exploitation mine bu jamaa boo xam ne am na ci réewum Sénégal te ministre des mines ba woon Aly Ngouille Ndiaye jébbaloon na ak document boo xam ne mën na tax Mimran mën a exploiter jamaa bi fii ci réewum senegal loolee nag sabab ay milliards yoo xam ne daal dina cay dugg moom maître musa Diop tudd ci président Macky Sall tudd ci Aly Ngouille Ndiaye tudd ci Mimran waaye tam tudd ci Diagne Ndiaye turbine yéen a kaay naan man mujj naa métti wala gannaaw kàddu yi moom maître Moussa Diop day tama ëpp na koy buum ci réew mi moom Mimran daal dinay weddi moom daar daar ba mbir ma amee la ko daal di weddi Vox Populi naan man Mimran kay xamle na ni bu ay document d'exploitation am na daanaka ci bopp maître Moussa Diop la nekk waaye ñoom ci boppam mësuñoo exploité mësuñoo jot ay document l'enquête quotidien naan man Aly Ngouille Ndiaye porté na plainte moom Ousmane s DG Somisen nekkoon ni directeur des mines nee na amul benn société boo xam société minière la di exploiter jamaa fii ci réewum Sénégal source a naan ko déet moom ministre des mines ak bu géologie Omar Sarr nee na ñaari permis yoo xam ne day tax ñuy warug diamant mi ngi ci réewum Sénégal waxtu wii waaye tam benn autorisation d'exploitation semi mécanisée mi ngi ci réew mi résultat kay la ñu amagul waaye looloo ngi ci réew mi beneen titre nag boo xam ne dañuy saytu jamaa amul ci réew mi tribune yéen kaay naan kon naan amul moom ministre bi ci boppam di xamle ni am na waaye semi mécanisé la askan wi nag nag nee ñu na leer ma ni la xaayaan ku dégg séeréer lii maître Moussa Diop daal di wax ne am na ci réew mi na leer réew mi ko dijee naan koon en tout cas coow li moo mi ngi gën di rëy laas yéene kaay naan koon gënul rëy kay fi mu ne justice kay moo tàmbalee patam patamee maître Moussa Diop l'enquête ko dijee naan koon waaye ay kàddoom moom maître Moussa Diop nee na lu mu wax rek am na cay preuve libération yéene kaay nan koon ci kanamu enquêteurs yi moom maître Moussa Diop dafa xamle benn nee na arme yi nga xam ne daal dinañ koy jébbal présidence de la république te mu xamle woon Sénégal maître Moussa joob daal di nay dëggal ay kàddoom yemu ca moom maître Moussa Diop dafa daal di déposer luy dëggal ne moo ko wax geneen nga moom moo di libération xamal ma ne ci dil bi nga xam ne def nañ ko ci exploitation jamaa bi ci réew mi moom maître Moussa Diop def leen gokkil document yi nga xam ne génne woon na ko ci kanamu taskatu xibaar yi keroog ba muy jënoog ñoom xam leen ni nag document yi moom du wax mu ko jëlee njiital àndu gor yi jot na ma nga ca gardaaw yi Mimi Touré ak Guy Marius Sagna daal di sàkku ak commission d'enquête parlementaire moom mim raane man la lii ci bopp bopp maître Moussa Diop la nekk Aly Ngouille Ndiaye ne ko jabbu plainte ne ko leer rek tribune yéen a kaay naan kon lëndëm kay sénégalais bugg ko fi mu ne bëgg nañ kàddug maître Moussa Diop yii nga xam ne daal nay garaaw lool ñu andil nu ci ay leeral xam le fan la ci dëgg daal di féetee bu dee exploitation jamaa am na ci réew mi nan nu leeral ñen ñooyo yor document d'exploitation boobee ñan ñoo am droit exploité ko ci réew mi waaye tam lan moo goqi koo gum ci réewum Sénégal boobaak léegi Walf ko di naan kon fi mu ne élection lañ daal di jub si tuumaal moroomam tamante gi mel ni tulleeg maale yàqante gi génnante ay kaddu yu ñaaw day mel ni tulleeg maale ci réew mi Dakar Times mel ni ku naan ko acam le présidentiel présidentiel bu am ci réewum Sénégal boo xam ne kenn xamul fan la ëllëg gi daal di mujjee président Macky Sall moom daw na ca ba muy am tànk bàyyi leen ak seenum réew jël premier ministre def ko candidat coalition am di Benno Bokk Yaakaar ci waxtu woo xam ni ma ni la Sénégal rëbëjoo na ci wàlluk politique rëbëjoo na ci wàlluk social Sénégal rëbëjoo na ci wàlluk koom yéen kaay nan nan woowu jamonoy campagne bi lan la Sénégal joxe lan mooy bilan président Macky Sall waxtu wa xam ni nag ka xam ni mooy opposant bi gën a dëgër ci réew mi Ousmane Sonko ma ngi ca kaso ba laaj bi samp mooy ndax Sénégal fi ne mën nañ fay tëgg élection yoo xam ne dees na ànd coupe démocratie l'observateur naan kon réew mi jaxasoo libération yéeni kaay naan kon élection présidentielle yi moom daal dinay rëba jooba nuppi ca yëmbal komiko Amadou Sow jege ñaale genn candidat bu Sénégal ca kanam moom Sow mii dañu koo daal di nax Diallo moo def lu ni mel ci coowal trafic bu parrainage lañ daal di jotee ba mbir maa nga teeri jee ca police l'observateur naan ko déet ci wàllu collecte bu parrainage bi kay fichier électoral bi ak code d'accès bi la waa ji doon jaaye téeméeri junni maam booy jaawoog Mimi Touré tuumaal nan leen naña nga ca coow la yéeni kaay bi naan man bul dem coowal Ousmane Sonko bi léegi mu leer talaatay tey jii mën a dekkilaat yaakaar ci Ousmane Sonko réew mi ko di jee naan kon ëllëgëm ci wàllu politique moom Ousmane Sonko day tey dina leer ci réew mi le témoin yéeni kaay naan kon des na ko létt Ousmane Sonko turbine yéen kaay naan kon en tout cas dañuy xamle ni faase gi ñu faase turam ci liste électorale yi des na ko ci riigaat wala dañuy faase turam fayallaaxu lu ci mënti am daal ay jege ñaaleem ña ngay wooti ab mobilisation ngir jàppale Ousmane Sonko turbine yéen a kaay naan man booba waa Géejawaay ña ngay jàppale Bougane Gueye Dany gannaaw tournéem ci biir réew mi moom jiital gëm sa bopp daal dinay gor sémmiñ ay adversaire am ci Géejawaay le témoin ak critique yéen a xamal ma ne député bii di Awa Sow ak maire ba woon bu njaareem Limaamu Laay daal dinañuy dem fekki Bougane Gueye Guèye a ak coalition gëm sa bopp ca Guédiawaye le témoin yéen kaay naan maan boobu élection bu représentativité syndicale ni ki tey des na ko amal ci réew mi diggante CNTS UNSAS ak CNTS FC ñu bëgg xam na kan ci ñoom mooy jiite centrale syndicale yi laas yéen kaay naan maan lu toll ci ti téeméer fukk ak juróom benn ci ay électeurs ñoo war a xam ne tey ci fukk ak ñaari centrale yi kan moo ciy jiite le témoin yéen kaay nan man njiital Wakf tey daal dinañ koy teeroo ni buur ci Émirats arabes unis ci visite de travail ba nga xam ne amaloon na ko El Hadji Amar Diagnel président bu haute autorité bu wakf di mairie bu sagata guet yéeni kaay bi naan maan waa émirat arabe uni teeru nañ ko ni buur waaye tam daal di koy xamal ni finance islamique dees na ci dugal seen loxo ngir joyanti koomu réewum Sénégal loxol Sénégal ci soos la soleil yéeni kaay naan maan teex teex may ree kay mënees naa nekk ndax bu dee Victor Osimhen daal dinay jël place u Sadio Mané ca CAF Awards bi moom Lamine Camara daal dinay sagal Sénégal nekk meilleur espoir africain bu at wi tribune yéeni kaay naan maan bul dem desal ak man ma lay xamal tës nga xam am ci xale bu jigéen boo xam ne fukket ak ñett dong la am ba mu fàqee dafa daal di dal ci génn waay joo xam ne juróom fukket ak ñaar la am ndekete waa ji ab tonton saay-saaya waa ji jël xale bi am fukket ak ñett jëfandikoo ba nuppi yóbbu ko ci baar di ko jox ay client diggante ñaari junni ak ñett junni lañ ko doon weer sa ngir sëy xale bi ba ñu jàppee waa ji ca la geneen mbir feeñ ndeke beneen xale bu jigéen bu am fukket ak juróom ñeenti it ma nga ca woon waa ji daal bu xëyee daf leen di luwee geneen waay goo xam ne dafa ameeg laago saa bu la leen di luwee